lay nuyu di len ziar sen frère la Cheikh an ma bëgg ñëw si affaireu assis Dabala bi ñu ray euh, man nak ci benen côté bi lay ñëw muy côté sécurité bi parce que tay amna amna fi jamono toll ak fi aduna toll amna yu bari yo xamne boko défé actuellement mën nga muccu si yi nga xamante ni mooy rey gi nga xamne mu ngi ñu ngi koy def Sénégal wala bu amé tamit ñako def automatiquement di nga polis police pour ñu japp leen euh, ma won leen ci benn exemple gis ngeen euh, li caméra surveillance lii sama kër la sa Sénégal voilà caméra surveillance yi man maa ngi New York lépp lu sama kër yendoo suba ba ngoon dama koy gis te caméra bi sama téléphone la nekk sama poche jënd leen ay caméra surveillance ngeen def ko si seen appartement yi ku ko man ngeen def ko seen buntu kër yi parce que boo jëndee boo monté caméra bi tey ku mel ne Aziz moom ñu rey ak Waly bu nekkoon ne si appartement am am na caméra surveillance bi ma am nii kon tey fu mu mënti nekk kon police dañ police sax du def enquête parce que yow mi dëkk ak moom képp ku dëkk si kër gi rek wala nga dëkk si appartement bi mun nga télécharger application bi nga xam ne moo activé ak caméra bi nga xam ne foo toll da gis sa kër man New York gi lay toog di xam sama kër lu muy yendoo su nekkee heure bu ma neex ma neexee mën naa dugg gis nga application moo nekk nii moo nekk ni mel ni kër gis nga su ma ne nii rek mu ubbeeku fu mu toll lii sama kër la foofu Sénégal luy dugg ak luy génn su ma ñibbisee damay arrière caméra bi xool kër gi yëpp lu mu yendoo journée bi yëpp su ma neexee sama oto laay teg téléphone bi ni di xool kër gi kuy dugg ak kuy génn léegi sama soxna am na am na application bi si téléphone am sa na am application bi sa xarit kenn ku ne mun na am application bi nga xam mun na xool kër gi léegi police tey bi ñu reyee Aziz da nga da nga yombalal police bu ñëwee si kër gi lu muy jëre mooy day xool kenn si kër gi ku am téléphone bi ku am application bi si téléphone am caméra bi parce que bi da ngay dugal ak mot de passe bi mu xool arrière caméra bi xool ñan ñoo doon dugg si kër gi ak kuy génn loolu sécurité la secret boo xamante ni léegi àdduna bi même sa oto sax boo gaaree sa kër di nelaw bu la neexee ku laal oto bi nga yëg ko te sa néeg ngay nekk wala sax nga nekk Amérique fii lii maa gisee sama benn xarit comme que man dama sob di gëstu bu ñuy wax Mohamed Cissé dañoo toog ma gis téléphone muy xool ay këram ay ay xaram yu nekk Sénégal kaw terrassam ma ne ko waaw Mohamed yow lii ay xar la de looy seetaan nii mu ne ma non sama xar yi nekk Sénégal laay xool keroog laa jënd même caméra yi installé ko sama kër di xool luy dugg ak luy génn te loolu boobaa léegi yàgg na te lépp lu fa xew rek balaa maa tëdd dinaa xam lu fa xew damay arrêté caméra bi di xool liy dugg ak liy génn kon maa ngi jox conseil euh, euh, ñii nga xamante ni yéen a ngi nekk Sénégal te tey tiit seen njaboot di tiit seen kër baax na ba nga xamante ni même sa doom bu génnee jàngi sax mun nga xool ndax wàcc na heure bu muy wàcc ndax dugg na wala génn kon yaakaar naa lii bu amoon si appartement yi nga xam ne ñoom Aziz foofu lañ nekkoon kon amaana danañ gën a yombalal enquête bi sax police. fi may daanelee mooy di wax état bu Sénégal ñu gën a jàpp si sécurité bi si peuple bi parce que tey. fépp foo dem si àdduna bi policiers yi da ngay gis ñu circuler si biir koñ yi si biir gox yi di dem ak dikk ak seen oto loolu dana wàññi tension wu defkati ñaawteef yi tant que ñuy gis police di circuler rek sol bi noonu oto bi di dem ak ñëw rek danañ ragal muy guddi muy bëccëg soxlawul sax ngay def ay ramas ak ay ñoom seen na oto police yi di circuler rek partout nag région bu nekk police di dem wala wala ñuy taxaw wala ñuy doxal seen tànk loolu day ragal loo kii war a def tant que muy gis image boobu noonu kon ñu ngi sàkku si yéen xam nañ ne loolu nag alal moo koy def ndax laaj na essence bu doy bu essence amul tamit police yi di génn di dox ak seen tànk si gox-goxaan yi di dox di dem ak dikk loolu dana invité li nga xam ne mu ngi xew. di wax ne li tax nag sénégalais yi ñu mel ni patron de presse yi li tax ñu war a fay impôt bi ñu yoral Sénégal li tax képp koo xam ne da ngaa nekk Sénégal nga war a fay l'impôt l'impôt boobu si loolu lay dem. parce que li ñuy fay police yi ak alkaati yi mun na tuuti ba mooy waral ñu leen di monter loo si tali bi pour ñuy jàpp ay infraction loolu yëpp baax na waaye li ëpp solo mooy sécurité dafa am loo xam ne day alerter. kon nañu taxaw si alerte boobu noonu fexe ba def police ñu dugg di dox si koñ yi tant que ñu ngi gis ne koñ bi police mu ngi baagante dem ak rek da ñaaw defkatu ñaaw te fi dañuy ragal waaye bu nekkee ne yow dangay toog weer ay at doo gis police si koñ bi mooy indi yi di am parce que Sénégal koñ yëpp a wéet police si tali bi rek nga koy gis circulation kon ñu ngi ñaan ministre de l'intérieur ñu ngi ñaan président de la république ngeen renforcer sécurité bi bàyyi leen xel li ma leen wax si caméra yi ut leen ay caméra képp ku ko man nga def ko sa kër yomb na application bi rek ngay télécharger application bi ak eh, email sa email ak caméra bi ñoom ñooy ñooy ñoom ñooy communiquer foo toll man New York laa nekk di xam li xew sama kër. di leen fàttali rek yóbbante le président Ousmane Sonko président Diomaye nee na ngeen di jëmbat garab te bu ngeen di jëmbat garab na ngeen jëmbat garab goo lekk di am garab goo xam ne di nga witt di lekk te bañ a jëmbat garab goo xam ne xob rek la lay jox ak temps bi jël ba pare ngeen di ko toppatoo ba bu ko xar lekk bu ko bëy lekk comme ni ko Casamance yi defee te garab day indi taw kon jëmbat leen garab te di ko toppatoo.